waaw salaamaaleykum encore une fois damay dellusiwaat parce que démb dañu def benn sorti di dénoncer le ministre de la culture ci tey jii seetaan bi nga xam ni seetaan na ko les artistes parce que fonds bi nga xam ni moom lañ génne muy fonds Covid bi culture def ci bokk ministre bi warul tëdd benn yoon di nelaw. dafa war a taxaw njabootam bi nga xam ne moom la ko président de la république dégg ñëpp ñu ngi gis ne artistes yëpp a ngi kaas for naan nag ci wewu bay nii moom tey ji ministère bi commencé nañ di woo ay artist ci suuf di leen jox xaalis artistes yi ñuy woo di leen jox xaalis buñ leen woowee nañu dem jël xaalis bi parce que ñoom ñoo ko moom bu ñu jàppee seen bopp traître bu ñu jàppee seen bopp ay workat kuñ ci woow ci pet ni la ñëwal ci ministère bi parce que ñoom maam góor commencé nañ dénoncé demal nga jël xaalis bi artiste artiste mooy mbokkam ministre bi dañu jàpp ni liñ ko dénk attanu ko donc nag ñun dañ koy dénoncé ay bëy lañ kenn duñu rey ci ci ruq dafa am benn fonds bu ñuy woowee fonds Covid 19 te culture def ci bokk ñu gis ni yeneen ministères yi nekk ci yeneen secteurs yëpp muy sport muy tourisme muy bu mu mën a doon ñëpp a ngi jóg di jàppale seen ñoñ ñun nag gisuñu ministre de la culture lu mu def pour les artistes donc nag artiste bu ñu woo ci suuf demal nga jël xaalis bi. am na ci structure yu xaalis bi war a mën a jaar tey jii ba mën a yegg ci artistes yëpp te woo kenn ni la demal ministère képp kuñ ci woo ci ministère bi demal jël xaalis bi. jàppal ni doo traite demal nga jël moonin bi voilà wasalaam merci.